asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 30 avril 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëgle kaay yi mu mel ni ki nag yëgle kaay yi tey moom sunu làmb ak Les Échos Leewtoo TV ak Leewtoo point net rek ku ci nekk daal tey xëy nga ñëw ci làmb ji bu dee sunu làmb la moom fa mu xëy njëkke mooy Eumeu seen la xëy tey wan ñu ko mu nga takkoo ab rabalam mel ni kuy waaj a fecc bokk wala kuy waaja a tuus waaye yëgle kaay ba daa ñëw ne Eumeu seen day ginnaaw bi mu nekkee roi des arènes géntam génnam bu njëkk en tant que roi des arènes ndax ak waru cee am sunu làmb xëy tey di laaj boobu laaj jëmale ko kii nga xam ne moo di roi des arènes bi nga xam ne moo di Eumeu seen borom taay singa waaye keneen koo xam ne nii moom ah loo ci mën a dégg daal def na affaire muy kii nga xam ne nii moo di garga mboose ginnaaw ba mu defee affaire ba pare nag garga nag nee nag dafa pare nag fi nekk nii nag fas yéene nag fayekul magam di sos jàppal Ama Baldé bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la garga njëkk a tudd guy gi wala tafaatin nee na ñoom ñii daal ku ci nekk daal jàppal ne daal pare naa ngir daal defante ak yow loolu moo di waxi garga mboose mu nga wàcc nag ne cam tuusam feneen foo xam ne wax na fa mooy les corriger ko garga na li leer ba leer day jàppal Ama Baldé moom xam na bu baax a baax a baax fan lay teg ay tànkam ndax nag dof defu ko moo la gën a xam li xew fuuf sama diggante ak moom keneen koo xam ne tamit jàpp na ne adversaire la taay la ngir moom ba tey ci les échos moo di rakki Balla Gaye 2 di Sa Thiès waaye Gris Bordeaux moom ne tamit day jàpp na ne lu tax sama diggante ak moom nee na daa war a mën a neex ndax toll naa ni ñëpp garga mboose moo xëy tey di wax loolu nee na nag jàpp na ne ñëpp ñu joxoon Moussa Ndoye favori moom dañ ko dugal ci danse maanaam daal ak fiir lañ ko lalaloon ndax bañ ko naan yow yaay yi jàpp na leen daal dañ koo dugal ci loo xam ne xamuñu ko ndax man garga moom mbër laa te kaamil ja yegg naa ca loolu mooy waxi garga mboose tey ci yëgle kaay yi waaye leneen loo xam ne tamit xëy nañ gis ko ci yëgle kaay yi rawatina Leewtoo TV moo di Boy Niang Boy Niang nag jóge na fa nga xam ne mooy ca Japon ak France ñëw démb ci réew mi démb nag waa Leewtoo TV fekk ko fa nga xam ne moo di Pikine ca biir këram ñu teeru ko daal nañuy teeroo buur yaay ja génn baay ja génn jabar ja génn soppe yaag ñëpp génn xale Pikine ya ñu di ko daal teeroo ko tatagal booy ñang nag ba mu yegsee ñu jox ko ndox mu naan ba mu toogee day lim njëkk a wax mooy mu ngi sant tey gërëm demoon na Japon ci invitation jóge fa nekk France di liggéey liggéeyam ñëw nag ngir waajal ab jàkkaarloo mu war a def tey fële nga xam ne mooy ca 2 moo kii nga xam ne moo di Lac de Guiers 2 waaye booy ñang daal nee nañ leer ba leer day Lac de moom nee nañ moom rek kese kese taxut may liggéey nee na sama liggéey jël na sax bëti kii nga xam ne nii wala jëmmi Lac de Guiers 2 lay xool ci kanam ñu ne ko sa diggante diggante ak géejawaay mu ne géejawaay jàmm dong nga am suñu diggante dafa fekk ne nag làmb fu nekk fu mu sa adversaire ne da nga fay dem bëre ak moom waaye nee na bañante amu fi lenn amu fi làmb nu boole dañuy bëree te bu jeexee jeex na nee nag yàgg naa leen a daan waaye moom daal daa jàpp ne lool dafa war a continuer ñu ne ko géejawaay bennoo nañu de fas yéene ne ci ginnaaw Lac de Guiers mu ne loolu moom mooy yoon ndax mooy li war a am ñun waa Pikine itam ñu nga ci sunub cent pour cent rek moom Boy Niang daal diggu na Lac de Guiers numéro 2 jàpp na ne daal moom curuxu curuxu moom la tudde ma loolu mooy waxi kii nga xam ne moo di booy Niang numéro 2 démb waaye bu nu fa jógee tamit dañuy dem rek ba tey ci fii nga xam ne moo di sunu lamb ñëwaat fa sunu lamb nag ne na jàpp leen arène nationale boo xam ne dañ koo tabax te boobu ba tey tëgguñu fa combat boo xam ne am na ni fa benn bi mu ne nag xanaa lig Nicolas yow yaay nekk ki nga xam ne nii kon yaay testé arène bi ndax nag jàpp leen le 16 juin lay indi ay combat yu mag a mag moom lig giri armée bu benn baraak ak caat bu booy bambara waaye ku sa ak jéen kayre moo tax nag sunu làmb na xanaa kon lig mooy nekk ki nga xam ne ni daal mooy ubbi ji làmb ja ubbi boo xam ne bu réy réy lay doon ndax la ñuy jox làmb ja ba tey wala arène ba méngoowul ak li mu yelloo leneen loo xam ne moom ci arène nationale ba lay amee suba jàpp leen combat la sëñ du ñaa fa jaar Pape bu xees lañ koy wax nekk ci écurie Fass mook Filikis bu jàmm gën ñooy bëri suba grand combat fa nga xam ne mooy ci arène national waaye dañ fay jóge ba tey rek continuer ca Leewtoo point net kii nga xam ne nag moo di jàg si moom suba nër naa yëngal stadium Iba Mar Diop ñetti million la fa teg ci feet gi nga xam ne mooy féetug liggéeykat yi waaye jamono ja def loola tamit Adrien Senghor dañ koy yëngal ak mise u un mel ni kon du dem suba daal boo bëggee dégg-dégg moom fii nga xam ne daal mooy ndakaaru ñeenti million teg nañ ko fi ci làmb àndul ak dóor million Iba Mar benn million fa nga xam ne nii moo di Adrien Senghor waaye jàpp leen ba tey rek ca Leewtoo point net fekk nañ fa ñi nga xam ne nag mooy équipe nationale ba waroon dem ca Burkina ngir ab tournoi ci ajjuma ji waaye nag nañ tournoi ba mu am ndax la ko waral daal mooy ki ko organisé woon moo accidenté ba ba jëlee ci ab damm-dam ñoom booy fayak mbër yi ñu waroon àndal daal mbuj mbir ma dañ koy mujje bàyyi waaye li nga xam ne mooy Serigne Yao tamit day dañ koy reporté ndax ren daal bu bëggee dégg-dégg du am ndax nag li ko waral waa Syria bu koy organiser danañ seen i poste daal ren daa foq dara yoruñu ko bay organiser li nga xam ne nii moo di mbirum séddi yaawoo kenn koo xam ne nii moom ci équipe nationale bi dañ ko cay faral di gis mooy Fra moom day la tribune xamal nañu ne day ren sauvé nañ ko ci année balance ndax nag kii di jox na ko combat te loolu moom su amu kon moom jàpp na ne daal kon année balance la naroon def moom mii nga xam ne moo di Fra waaye man daal li may wax Talla Ndiaye mooy maa manoon mënatuma maa gisoon gisatuma xanaa desu ci dóor kenn ndax li leer ba leer jàpp leen waa CEDEAO ne nañ ren mënuñoo organiser tournoi CEDEAO ndax yoru ñoom xaalis tey Talla Ndiaye xaalis ba bi loo ci mun a dégg baax na si gor ndax nag day dag bu mi gàcce de yàlla nañ yàlla may xaalis te mu ànd ak ak lewti salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo yi ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour ànd ak yéen ci seen revue de l'arène ak sama mag sama xarit Babacar lay doon Babacar nuyu naa la. Aïssa Faye madame Niang sama rakk sama xarit maa lay fay ah di la ziar di la ñaanal jàmm di ko saxu ci yow tey tombeek euh, mardi 30 avril ah kon ñu ngi ne ñëpp ñu ngi suivre fu ñu mën a nekk si àddina bi. waaw Babacar ñu dugg ci jàngat bi ak tey suñu lamb lu ñu andil ci Eumeu seen ne ndax tey Eumeu Sène euh, en tant que roi des arènes def première sortie en tant que roi est-ce que tey amul psychose défaite maanaam ragal défaite du est du loolu moo ko dal fu mu toll nii. waaw ragal défaite moom dama naan <laughs> mbër mbër buy bëree ragal nga defet ñun ñi sax ragal lañ parce que nit ki bëgg nga lépp looy dugg rek nga dugg ci bisimilah rahmaani rahim jeexal ko alhamdulilah rabil alamin maanaam kenn bëggul di jëm si dara di ci échec yaa ngi dégg rawatina nag bu dee ci cadre lamb bi ñu jëm la defe naa mbër bi dagg tey licence am au niveau du CNC ba mbër bi nekk roi des muy Eumeu Sène ku ci bëgg a amul ku ko ci ragalul ku ko ci ragalul tamit amul parce que li ko waral mooy benn da nga ab jongante la te jongante xëccoo la ndam ndam li da nga koy soxla pour yóbbu ko sa koñ ko sa say soppe ak sa ay am di jàmm parce que boo ciy dugg tamit da ngay jàpp ne am na ñoo xam ne buñ sañoon da ngay daanu ñooñu tamit da ngay fexe ba doo daanu ndax ñooñu parce que nit ki dañ naan la ay satu war ngay góorgóorlu ngir sa ay soppe mais war nga di góorgóorlu tamit ngir sa ay noon parce que loolu moo am si àddina kon yaakaar naa defet moom Eumeu Sène ragal na ko Modou Lo ragal na ko Aysatu ragal na ko Babacar ragal na ko yàlla nañu yàlla musal ci defet daal defet moom wóorul daal waaw waaw amin euh, euh, euh, neexul parce que ki nga xam ne ni mooy Moussa Garga Dane journaliste yi demoon nañ seetu ko mais apparemment dafa déserté këram kenn fekku ko fa mais kii nga xam ne nii mooy euh, Garga Mbossé moom wax na bëgg-bëggam nee na kii ñoom Ama Baldé guy gi ah tafaatin bàyyiwul kenn ndax fu mu toll nii dafa taxaw pour jël revanche ki nga xam ne mooy frère waa li ma doon wax léegi seet si maanaam si défaite rek ki nga xam ne Moussa Ndoye tey bu toogulee këram ça veut dire que défaite bi mu am moom la digéré maanaam moo ko naqari yaa ngi dégg xëy na moo tax tey bëggul toog këram sax ñi du ko fekk muy am lu muy expliqué ndax kere boo xoolee bi lam ji jeexee jeex dégg naa ko micro bi mu daanoo mais mooy mu wax guddul yaa ngi dégg sant yàlla rek dama doon daan tey daan nañ ma te la yem nangu da wax leneen ça veut dire que kon defet moom méttee noonu ah loolu nag li ñu koy xamal daal moon en tant que frère mooy que ni sport lay def gëj na daanu depuis sept ans tegle ay ndam kon na dellusiwaat këram toogaat dalal xelam delluwaat ci entraînement xam ne moom xale la am na mboolu te promoteur yi soxla nañ ko te mbërum cosaan la te dafa bokk si la moom muy Moussa Ndoye ñu ciy profité di nuyu ay soppeem yëpp waa ki nga xam ne mooy Serigne Diour depuis Italie ay soppeem garga tamit loolu mu def moo parce que ndama neex moo tax tey mu toog nag vraiment parce que mu daanoo contre booy ñaa metti woon trop ci moom mais mu ngi lëlu woon di liggéey yàlla def tey mu am combat bu nga xam ne potentiel adversaire la woon yàlla may ko ci ndam lu leer nañ kon ñu koy félicité wax na tamit ay bëgg-bëggam ñooñu wax tamit ay adversaire de taille la ñu Ama Baldé moo Garga dafay neex ki nga xam ne nii moom moo di euh, guy gi adversaire de taille la même tafaatin bu ko neexee tafaatin war na ko mën a gëstu may ko sens mais ndax dina ko nangoo jël loolu mooy coow li ak fi mu toll loolu mooy problème bi waaye ñoom làmb dug maas li ñuy wax rek dabante la xëy na euh, mbër moom bu nekkee ci lance bi mu war a nekk ku ko bañ ren it diwin di mën nga ko woon waaw mën nga koo bëgg parce que lamb da leen di boole mais ay adversaire am bëri nañu ama neex da ciy bokk Modou Anta mu ngi ci biir ñooñ ñëpp ay adversaire de taille lañ pour ki nga xam ne ni mooy Garga Mbossé parce que tamit euh, ñëwaat na te bi mu ñëwaatee tamit fi mu nekk nii li mu bëgg mooy dellu si jëlaat place bi nga xam ne ni moom la amoon parce que man dama naan Aïssatou ba tey Garga place bi mu war a occuper ci làmb dese tuuti pour mu occuper ko xëy na nag na a liggéey làmb euh, yaa ngi ngi suñu kanam àdduna ngi yoon bu jeexul rek euh, waaxu si lu jeex Babacar ñuy daal di doxantu foofu ba arène nationale suñu làmb tamit ñëw di ñu xamaan ni bañ ko tëggee ba léegi bañ koo taxawalee ba léegi maanaam tëggaguñu fa combat bu rëy bu tax ñuy wax combat bu mag nee na nag est-ce que Luc Nicolaï du moom moo nar a jox amateur yi loolu ñu ci arène nationale waaw boo xoolee wax dëgg yàlla loolu taxaw seetlu boobu suñu làmb def tamit day méngoo ak parce que boo xoolee combat yi fa dem yëpp ay combat espoir la yooyu la fa promoteurs yi tëgg loolu tamit ah, ah, xëy na kon arène national ni mu toll ci ay place ak niveau bi mu toll joxaguñ ko xëy na combat bu toll noonu ci làmb maanaam combat grande événement yi par rapport ak li ni ko laay nag li mu tëgg événement la yaa ngi dégg xëy na mbër yooyu sax euh, am na standing bu kawe mais euh, waaw parce que tey muy Gris muy Reug Reug daanoo guñ si làmb par rapport ak tey fi ñu leen di xool parce que nit ñi dañu yaakaar ne ñaar ñi ëllëg dañu war a bokk suñuy tee làmba mais li ci des mooy boo boolee Quench ak Diène Kaïré gis nga tamit ñooñu ay mbër yu mag lañu ay xale lañ mais ay mbër yu mag lañ ki nga xam ne mooy euh, euh, armée bu benn barak ak Charles Boy Bambara tamit kazalika nag loolu nag boo ko boole ci benn journée yu bugg arène nationale kon mën nañu xalaat nekk kay Luc Nicolaï bés boobu dafa mel ni kon moom moo nar a jëkk andi loo xam ne lu rëy lay doon parce que tamit ñetti journée yooyu nga def ko ci benn ngoon def ko ci benn arène lamb ju rëy rëy lay doon ba pare nag moom Luc tamit yàlla dimbali ko mu nekk promoteur bi nga xam ne vraiment li olof naan loo bañ bañ lëkk di nga ko nangul guddi nopp ba ak mën a dawam ku man événement la macha allah boo xoolee lu mu tëgg rek mën na koo togg a togg a togg ba bu génnee day nekk événement boo xam ne bu rëy lay doon kon ñu ko si ñaanal ndam ak réussite mais di ñaanal tamit promoteur yëpp ku ci nekk rek la nga sumb yàlla defal la ci ndam ak réussite waaw amin euh, Babacar ba tey arène nationale la ñuy des parce que suba incha allah kii di Serigne Modou Niang dafay euh, tëgg gala diggante Pape bu xees bu faas la ak euh, Filikis bu jàmm gën mu nekk affiche boo xam ne arène nationale lay am suba incha allah sëñ Modou Ñaam ñu koy nuyu di ko ziar parce que moom it mu ngi promouvoir tout le temps rek euh, ñi nga xam ne ñooy espoir u yi parce que Pape Boxe ba su mu xawoon ma tàllalaat na ko loxo may ko sens boo xam ne moom tamit boo xam ne ah, muy nekk journée boo xam ne dina neex su ma jumul drapeau Père Ousmane Diouf la suñu papa ñu koy nuyu di ko ziar muy loo xam ne daal suba ci premier mai bi kon arène nationale moom ah nar na am lamb yu neex a neex mais làmbi xale la di nuyu sëñ Mour encore une fois di nuyu tamit doomam sëñ njagañaa bi nga xam ne tout le temps moom la ñu gis sur le terrain mu nekk di yëngu ci ci affaire làmb jooju waaw drapeau Ousmane Diouf Babacar jot na jàll ba pare jàll na fi weekend weekend bi passé sëñ Modou Niang jotoon na tëgg li nga xam ne ni mooy drapeau Ousmane Diouf suñu papa jooju noonu noonu ñu ko ci sargal bu baax a baax encore ñu jeexal ak li nga xam ne tamit ba tey suba la jour fête du travail bi ak lutte simple bi mu mel ni promoteur yi tamit ñoom foofu seen yaram tàng na jag si teg 3 millions ca Iba Mar euh, Mboor tamit teg un million fële ca arène Adrien Senghor mu nekk tamit ñaari gala ci ndakaaru gi 4 million waa Jax moom encore une fois di ko nuyu di ko parce que mois d'avril bi du ma ko fàtte ci làmb ndax Jax ndax moom mu njëkk a décoré ci làmba man ak Lamine mm-hmm. waaw mu njëkk a décoré daaw suru 4 avril yaa ngi dégg tey mu ñëwaat tëgg teg euh, ñetti millions Iba Mar suba ci fête nationale bi moom itam vraiment mu ngi béy waram ci li simple bi jax di ko nuyu du nuyu entourage am yëpp rawatina ñoom duudu ñaan mboor tamit ñëw teg un million kon daal suba Dakar jàppale nar na xat 3 millions mu nga Iba Mar million mu nga Adrien Senghor kon nag suba mbëri simple yi ñooy bañ liñ naan ñooy choisir Aïssatou suba ñooy choisir fu waay neex dem bindu ci bëri waaw j'espère que Babacar est-ce que sax du opportunité pour euh, yenn mbër yi su ñu mag ñëpp demee Iba Mar xëccoo millions yi ñeneen ñi nga xam ne peut-être gis nañ ni mënuñu génn Iba ñu dem fële ca arène Adrien Senghor waaw ah, foofu boo xoolee rek suba moom xam naa am naxante dina ci euh, ci am parce que am na ñoo xam ne ñan ñoo fële kon suba suba moom jàppal ne ñoom bala ñoo dem ci arène yi bëri ji gis ay calcul yu doy war di yónnee ay ndaw espion ku leen fa toogal ne leen fii lu fi xew ak ñu fi nekk mais nag loolu moo lay wan nekk daal lambi simple tamit mu ngi béy waaram bu baax a baax parce que bu ñu dem ba Dakar euh, benn journée ñetti lamb am fi ndax ñetti lamb la lamb dóor ba mu nga arène nationale Iba Mar Diop am na 3 millions fa nga xam ne mooy Adrien am na 1 million ça veut dire que kon lamb ji macha waaw te waa c'est normal koor gi xam nga ñëw na ba pare Aïssatou li Talla Ndiaye di bañu dégg koor gi non Talla Baye Fall la na koor ci mbokk yi suivre Leewtoo TV li leen andiloon ci seen revue de l'arène tey di ci ànd ak euh, Mame Talla ci caméra bi ak euh, montage bi di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp ñoom yàgg Ndeye Kumba képp koo xam ne rek yaa ngi xëy si Leewtoo rek ñu lay nuyu baax Thialis ci lañ koy commencé tonton Diaw ba wàcc si ñi fi nekk ñëpp Babacar tey nag euh, revue bi dama koy jagleel euh, ki nga xam ne kenn la ci man euh, muy sama sama yaay ma koy ñaanal gudd fan ak wér tax tey la anniversaire ma koy wax yaay dundal lu bëree bëri bëri parce que Babacar yaay ji yaay ju mat yaay la bu ñu yàlla dee jëlal suñu papa ji boobu ay xale yu ndaw lañ mu taxawee taxawaayu papa taxaw taxawaayu yaay te tette ñu yor ñu ba tey jii nii lu ñu mën rek moom la Babacar kooku dañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi luy bëree bëri bëri bëri te ubbil ñu xéewal yoo xam ne Babacar dinañ ko teral lu raw si njottam di ñaanal képp koo xam ne rek euh, yaay nga yàlla guddal sa fan may la wér parce fii li ñu li li ñuy def si ñun ñoom rek ñoo ko mën dañ leen ñaanal rek di ko wax yaay dundal lu bëree bëri bëri mënuma wax si yow sugu fara dama lay ñaanal rek yàlla bàyyi la si kanam njaboot gi yaay mère sugu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram di ko wax ne ko feet gi yàlla na ko yàgg a feete anniversaire bi parce que tamit sa yaay suñu yaay la yow tamit nga nekk ki nga xam ne ni ah euh, borom baax nga quoi comme ni ñu ko mën a waxee di ñaanal suñu yaay jooju daal mère sugu yàlla na ko yàlla guddal guddal fanam bàyyi ko njabootam comme ni ñu ko waxee rek bañ mën ko teral parce que yaay moom comme liñ ciy wax rek ñun yàlla dafa def tey man mi di wax ak yow ma teel a ñàkk yaay ci ba may nekk xale mu nekk lu nga xam ne lu metti la mais nag comme ni ñuy wax rek kullu nafsin saayxatin mawtin fa kullu mën a la yafaani waxe suñu borom la du mas a dañ ñi fi dem ñi dem ñàkkuñu fulla ñi fi des la bàyyiwu leen fi lépp suñu borom a koy dogal di ñaanal suma yaay tamit yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana parce que ñàkk naa ko ci ba may nekk xale loolu nag mooy àddina waaw àddina moo tëddee noonu parce que am na loo xam ne bëgguma ci sax di ci dugg des fois parce que dafa xaw a doy waar mais loolu moo neex suñu borom daal di la nuyuwaat ay sotu di nuyu ñi nga xam ne di nuyu tamit internet yi Racine ñoom ñëpp tuuti yaay Sarr tamit mention spéciale parce que chaque jour mu ngi leen fàtte parce que ñii ay sotu dañuy jënd seen kër di ñu topp ak di seetaan Khadim Fall Touba Mbaye gars yi Ousmane Diop moom itam Italie mais sëñ Baara depuis Brésil moom itam tey lay fête anniversaire am ci 30 avril bi kon sëñ Bara yow tamit anniversaire bi yaa ngi koy yàlla na nga koy yàgg fête mais du nuyu ñëpp mais di waaw papa daam tamit ñu koy nuyu mais di beral defal mention spéciale euh, Ibrahima Faye Beus xam nga lu tax démb dañu bokk benn reportage bu nga xam ne ñun ñoo ko bokkoon war ko defi suñu oto nekku fi mu taal yóbbu ñu man ak Talla njaay ak Lamine boole Leewtoo ak li TV si otoom dawal yóbbuñu ba Pikine ñu def reportage bi yaa ngi dégg suñu dërëm dugg ci loolu moo lay wan ne kon ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla nañu yàlla waaw te liggéey bi benn la kon bés mention spéciale mais Lamine tamit yow kenn du yow ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di nuyu waa waa Lutte TV yëpp Mouhamed le meilleur caméraman comme ni koy waxee ñoom Boucar Papa Ndiaye Soda ak ñi fa nekk. laa ko jox man Talla laa koy jox. waaw le meilleur boo déggee Mouhamed xam nga xale la daa toll ci di jéem li tax ma ne meilleur parce que dafa am lu muy wane Talla moom waxatuñu ak meilleuram Talla mu nga ca sommet taala amatul lu muy prouver ci caméra di ko nuyu taala encore une fois di nuyu séeréem lébu ndooy tamit mu ngi toog maa ngi koy nuyu mais tuuti yaay sar daal mention spéciale sama xarit sama doomu ndey sama soppe Louis Senghor madame Diouf maa ngi lay nuyu yàgg sa borom kër docteur Macoumba Diouf directeur horticulture maire Lat Mbengue di nuyu waa Lat Mbengue yëpp Aïssatou Faye Babacar damay tëj ak sama doom boobu nga xam ne tamit euh, teel a anniversaire am muy euh, di doom si Awa Baba sama sama cousine la kooku ma koy wax papa daam dundal lu bëri dundal euh, bay teral say waajur yàlla def la magul islam bàyyi la fii ba si kanama kanama kanam a ci loolu la ñuy tëjee taara di leen wax euh, ba suba incha allah